Père Sewru maa ngi lay nuyu nga nekk grand ménageur euh, ñëpp xam la euh, sa diggante ak Père la mu génn àdduna euh, yéen ban yëg-yëg nga ci am. waaw di di santal yàlla suñu borom di ko ñaanal baax a baax ndax per Balla Père Balla ñëpp la man nag dafa nekk ma sama xarit bëggaloon boppam saa yu ñëw star parce que lu jopp ñooy toog lu bare bare ñu koy waxtaan ak man parce que man ak moom dañu yàgg même ànd nañ fi dem France muy nit ku baax di nit koo xam ne tey nitu ñëpp la biñ ko déggee wax dëgg yàlla waaye nag ñu ñaan suñ yàlla suñu borom rek yàlla xaare ko àjjana te it am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a ndax xolam rafetoon na yaatu woon na bëggoon na nit njaboot tamit tam xirtal na ko ci ñi ba tey ji ay doomam sax mën nga ni bàlla mënoo xamee doom ji jur ak doom yi mu kiyal mu nekkoon sportif parce que sportif chaque jour ma wax ko sportif du entraîné dem yi sportif jikko la te moom moo nekkoon ci moom euh, muy loo te boo gisee bisam bi tey nga xam ne yéewoon na ni jàmm nitu jàmm la woon ndax kenn ko ne bàyyi nga si te ñëw taxaw ko ñuy gërëm itam famille bi nga xam ne foofu la jokk woon muy waa Kër Laayeen taxaw ba képp ku fa taxaw bisu keroog taxawaat bisu tey parce que xalifa général mi ngi ni doog a ñëwaat nii léegi nii nga xam ne kon kii am na fu ñu ko tegoon nit la koo xam nitu ñu euh, ñett bu rafet a rafet di ko jaal Sénégal yëpp di ko jaale aussi ku mel ni Balla Gaye de di ko jaale Youssou di ko jaale xale yi Guédiawaye yëpp di leen ko jaale yéen tam waa presse bi parce que nit ñëpp la woon waaw.